ma mais ku ma jàppale rek laa bëgg ndax xale laa amu yi fu ma nekk pour ma lekk sax rek garaaw ku nga dox nga woo ñëpp ñu toog autour de la table qui s'appelle la paix au nom de la paix tu es la bienvenue képp koo xamante ne que mën nga jóg nga dox nga wax ko ba jàmm ma ñëw tee la bienvenue problème Casamance bu ko kenn jël di ko politiquer problème Casamance bu ko kenn jël di ko politiquer ndaxte de lu ñu war a mën a politiquer la affaire de doomi aadama la loolu maa ngi lay nuyu bu baax yónnee ma vidéo président Ousmane Sonko bi ci sama téléphone numéro numéro France bi s'il te plaît buy terminé par le le 10 43 bi. prise dama leen koy ñaan président Ousmane Sonko ko ba wax na leen ko te côté boobu d'accord naa ci ak moom de mais képp ku bugg a politiquer problème Casamance bi ak loo ci ti wax moom dina la porter plainte te bu la porter plainte di nga boo moytulee kaso ngay jëm parce que dina la dinañ la laaj nga indi preuve yi ngay avancer ci say wax wax bi nag. bi mu koy wax émotion la ko doon waxee mais dafa laaj dëgg-dëgg bi vidéo bi dama kaa déglu déglu dégluwaat ko ba ci suba si te li mu ci wax man ànd naa ci ak ah. ànd naa ci moom politique dafa am fu mu commencé mu am fu mu yem ñoom Casamance bi doo dem ci hôpital yi nga fekk ko fa du loolu moo war a mu avancé loo suñu hôpitaux yi du looloo war a mën a avancé loo suñu problème de suñu ndox bu baax bi ñu war a naan lekk ak naan bi du loolu mën a jàppale ci quoi que soit déedéet loolu jàmm rek tudd jàmm mooy woo sénégalais yi ñi ko sëkk ñi toog parce que militaire yooyu di xeex ak rebelle ay doomi sénégalais lañu ñi toog ñu waxtaanee ko ci jàmm ak salaam jàmmaa gën loo gis te képp kuy sénégalais nga bëgg a jàppale française boobu nga xamante ne que moo ñëw toog di naan day bind histoire Casamance te moom mu am fii Corse am la Martinique la Guadeloupe Nouvelle-Calédonie ainsi de suite ainsi de suite te révolution yi am ci côté yooyu moo gën a garaaw li am Casamance Corse c'est des attentats en am fini Corse doo toog weer doo dëgg ñu ne am na lu lu sote foofu bugg ñu McDonald bugg ñu KFC euh, bugg ñu dara institut yi nga xamante ne que ne bokkul ci ñoom du seen du seen seen ko du ñuy moo xamante ne que ne bokkul ci am seen industrie locale bi. mu suñu ko bëgg seen biir lëkk boo ko fa tegee ñi sut ñi xool ñi tëbal ndeyam tëbal te boobu kenn du ko wax na dem bind ci loolu journaliste boobu na dem bind ci loolu situation Séné situation doomi se doomi doomi doomi doomi français yi li ñuy dund na wax ci loolu benn benn écrivain mooy ñëw jël temps nee na moom xam na Casamance ba xam conflit Casamance bi fu mu commencé ba fu mu yem mu war a mën a toog jël temps di ci bind. ñun sénégalais yi ñu bàyyi ko moom muy am ay njaatige ci biir Sénégal pour ñu valider ko imbécilité yooyu mu bind ci biir ci biir livre am boobu képp ku ko def. ngay góor ngay jigéen ak ku ma mënti doon ba sama yaay bi ma jur laa ci jiital nañ ko yóbbu ndungu siin ñi dem ñi tëj ko caabi feetoo ko ginnaaw na indi preuve yi mu teg ko indi preuve yi mu teg ko côté boobu moom d'accord naa ci ak Ousmane Sonko côté bu ma d'accord wala ak Ousmane Sonko mooy le problème du général Kandé bu mu ci duggal un militaire, surtout un chef de corps militaire, ne devrait pas être déshonoré en place publique. loolu kenn du ko def surtout en tant que chef de gouvernement ngay premier ministre Ousmane on ne déshonore pas un militaire même un soldat de bas grade ne doit pas être déshonoré en place publique surtout un gradé de l'armée ki a forme des hommes qui continuent à manier des armes, qui sont jusqu'à présent en service. mun nga wax ne cax erreur boobu erreur de communication yi ñëw fekkale yeneen erreur de communication yi nga def la xoolaatal sa bopp fais-toi entourer par des personnes qui vont t'aider yaa ngi dëgg a à t'abstenir à contrôler tes émotions boo ko defee boo ko defee waat naa ko ci jëmu Rasululaay ñëppay daw si ci yow ñëppay daw si ci yow émotion da lay dab saa la mbooloo de kii rek t'arrives pas à contrôler Même un, un sous-officier de l'armée, il ne doit pas être humilié. boo ko xamaloon sax li ma bëggoon a def sax lu sa yaram tàng tàng tàng tàng tàng doo ko wax yow xam nga tu as le dossier tu connais le contenu de ce dossier là sénégalais xamuñu yóbbu ngeen ko feneen détaché ngeen ko fii Sénégal yóbbu ko en dehors du Sénégal yóbbu ko ba Inde. li tax ngeen yóbbu ko foofu yow xam nga yaa ñi ko ñi ngeen ko sëkkal na ci yem jarul sa évoqué te buñ la sa cukkoon sax nga dem ba ci biir mu leer la kër kër munoo bañ munoo bañ a wax ci moom honoré ko il mérite pas de déshonneur bi nga ko defaral noonu sa général Kandé fallait pas la déshonorer comme ça. n'a, parce que cette déshonneur la n'a pas sa place dans tes campagnes politiques-là. Comme yo, tu ne peux pas t'empêcher de, de, de, répondre à certaines. Yo, tu ne peux pas faire. Tu ne Profil bas, tu ne sais pas le faire. Prendre des pincettes, tu ne dañ lay dugal te li ñu buggoon am nañ ko parce que ñoom yëpp dañoo àndoon ak benn dafa amoon benn mit bi nekk ci bi nekkoon bi accompagner ce général Kandela dans sa dans son détachement là au niveau de la Casamance et mité au niveau de hors d'état de Sénégal en Inde mu jaaxal ñëpp ku nekk di naan ñun xamuñu lan moo tax ñuy yëree ko fii ku nekk di inventé ay affaire am jàpp téye ko kenn amu ci woon ci leer li ko li ko ci leer. mais avec les explications d'hier là bi nga def ci kaw podium bi franchement c'était ni l'endroit ni le moment te ça honore pas ta personne au contraire ça déshonore ta personne et de passage ça déshonore aussi le même général la boo xamante ne que ne bu dee sax nekkut en service jusqu'à présent mais il représente le Sénégal en dehors du Sénégal nga di ko déshonorer nii sur un foofu laa d'accord ak yow foofu d'accord ma ci ak yow foofu d'accord ma ci ak te bu amee beneen conseil bi ma lay jox c'est pas obligatoire de les écouter ni de les prendre tu vois les petits pics là yi ngay sànni de gauche droite ñooñu nag leen war a ignorer nga bagatelle leen ba ñu baax nga sànni leen dans les oubliettes il faut pas partir de de ton horizon cinquante deux mille cinquante là bi nga tàbb ils n'ont la même vision que toi ils veulent pas emprunter la le même chemin que toi yow da ngaa am sa idéologie nga nar koo baa bàyyi lañ ñoom tamit ñu am seen idéologie ñu mun koo défendre sàcc yooyu ngay dénoncer nit tur yooyu ngay tudd ci say plateforme di leen tudd di leen tuumaal man tant que jusqu'à preuve contraire. tant que gisuma preuve yi man mënumaa nangu ko ni am na nañu ay sénégalais yi mel noonu nekk biir Sénégal di battre campagne yoo xamante ne dañoo sàcc xaalis sénégalais yi ñi dem ñu inscrire pour bugg a bokk ci dans la liste de élections législatives ñi nangul leen ko ñu dem verser seen caution ngeen jàppal leen seen caution ñu dem au niveau de de de de comment dirais je felewaay nu mu tuddati conseil constitutionnel ñu valider leen seen candidature donc yaa ngi quelque part. Mbaye sénégalais yi nee nañ hôpital yi doxut del waxtaanee hôpital yi hôpital yi nee nañ doxut personnel soignant yi sont sabon absent boo demee maternité moo fa am boo demee ci ci pavillon de de de comment dirais-je hospitalisation moo fa am boo demee ci pédiatrie moo fa am. boo demee ci généraliste yi moo fa am du matériaux yi adéquat du dee personnes personne personnel soignant adéquat du dara dara matut la liste des personnes inscrites sur la sur la liste des personnes qui doit euh, des des des des personnes atteintes de malformation cardiaque est tellement longue qu'il n'y a pas de chirurgiens de cardiologues pour pouvoir prendre ces gens-là en charge. Et puis la caution tant demandée, qui est une montante de 5 millions, pour un enfant mag yi c'est plus que ça on parle de cinq six million de caution ci tu viens tu viens tu verses non seulement tu payes cette caution là mais duñ en charge dans l'immédiat on t'inscrit sur une liste nga dem toog nga xaar ba le jour ji ñu woo la ñu ne la kaay nga kaay ñu opéré la te ñu bëri yàlla day def ni que ni balaa ñoom ñi leen di woo ñu ci bëri dañuy wàcc liggéey te bu ñu wàccee liggéey seen mbokk yooyu dugg génne dugg génne ba dajale seen cinq millions yooyu wala 6 millions wala 7 millions dem verse ko pour caution pour pouvoir faire partie de la liste des personnes qui doit attendre à à faire opérer. biñ leen di nangoo restituer seen xaalis bi.